di saxal di continuer di saxal mu jël saaru lëm mu wax ci boppam wax ci euh, ni mu mel melale boppam ne nii laa mel xam ni lii laa mel ni ma mel kenn melul noonu ñu tuddee suratu bi suratul ixlaas mu ne qul huwa allahu ahad na ngeen xam ni moom moom moom kesi kesi képp li imaam tàmbalee woon sànq di xamal ni jëf yi yépp ci suñu borom subhanahu wa taala lay dellu allahu samad gis nga boo xoolee samad ci quran dafa mel ni benn la imam yaakaar naa en chérif te as samad boobu la ca yàlla tënk moom mooy que li imaam wax léegi kay maye ka mën kiy dundal kay ray du kenn ku moom loo leen yëkkati di wut ca moom ngeen di dellu boo ko jëmalewul ci moom it ca moom lay dellu walla bokk sa ñaan donc tekkiwul dara bi maanaam du am sens gannaaw ba ñu am na yeneen ayatul Qur'an yi nga xamante ni yooyu yëpp di wax wax daaniyatullahi donc euh, di wane yàlla kenn yàlla rek la a jaamu keneen ne wut ku a jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bi mu yónnee te dañoo dañoo koo war a déglu dañoo war a ànd ak lépp lu mu jël wax ko wala jëfee ko wala ñu jëfee ko mu d'accord sunna ginnaaw bu ñu demee ba xam kitaaballahi donc la moo ciy tegu sunna ci waaw sunnatu rasul sallallahu alayhi wa traduire donc li ñu fi jot a waxtaanee tuuti rek ñëwaat ci euh, beneen partie bi dafa am ay mbokk yu fi ne sa fait treize ans ñuy ànd ñun ci gàmmu ñu remarqué que ne dañuy ñëw fanaan ba mbët sëg luñ fi mën a wax luñ fiy waxtaanee duñ ci dégg daal. da ci gën a bëri dañuy ñibbi wala kañ den dal moom la ñuy laaj lan la wax yu mel noonu te neexul te ñuy bokk lépp nag tàmbalee ndoo yu fi pare ndoo yu fi mënta ñàkk donc su fekkente ni xamante ni mën nañ wax rek mu yóbbaale ñëpp looloo ñu gënal looloo ñu gënal waaye jëlee nit ki këram indi ko bokk moom ñu fi mu toog ñuy waxtaan mu ne lan lañu wax pour bañ a loolu rek bandiraɓe on calminama on jurama kadi no mbimino on fof on bisnama goto bisnama ɗo foti bismede wetto ɗo goto fof bisnorama ɗon en kaali noon ko kalɗen ko ko won hen ko nanaka kono ko calminade e yettude arɓe ɗo ɓe caggal ɗum en totti almami dikko yewtani en ko fate galle no foti wonirede fodde ko haale galle no foti wonirede ko dañani temps yañir ɗum no yinno yañirde ɗum ni kono ɗum koko janngoyte wona e jamma goto fof anndu ko ɗum neɗɗo waɗat heen himɓe muɗum janngoya kono ma en ngaroyi ɗum nde wonno ko allah yamiri en e janngude e jang wi e janngude kadi ko heftaki debbo o walla gorko o wi ko ene fuɗɗo yen janngu ngannden o en ganndama en mbawa rewde mum gati ko ganndal addantuma anndude cuusbar ko nayi juulete takko san ko nayi juulete futoro ko tati juulete subaka ko ɗiɗi juulete ko ganndal waɗa ɗum ko ganndal addata hol hakke ma hakkunde ma e joom galle ma hol hakkunde ma e joom suudu ma hakkunde ma e ɓiye allah noon ene holla gooton faago muɗum o wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam anndude e rewede sona min o caggal sa andi deweteɗo ala kandude e rewede so wona e on ɗon saaha wat feere ɗum julɓe ɓe ɓe ɗum nelaɗo ko andina fof ko jamiraɗo yo andi ɗum yimɓe ɓe o fawjimo e laawol ngol aɗa ruttoro e joomi subahanahu wa taala han e kadi ko goppuɗa hen fof caggal nde ngannduɗa jaggirte koye timan ɗum noon kala hen ko kalden e ƴolfe en mbaɗa ɗum résumé seeɗa tan e ɓulaande wono waktu o koko datti en seeɗa ah, wonani jiɗirno ɗen en jiɗno fuɗɗade pakati ɗum ewa e jokkude tan fodde ko ɗo jaarano ɗen e jewte ɗo pour jokkude e ɗemgal men ngal eɗen kadi euh, jolse ñu delluwaat rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci waxdaani jot bi ñu doon wax donc ci hadis ne man ak ñama jiitu woon yépp fi mus wax laa ilaha illa allah moo gën mu ne ci beneen xadis sant nañ ma naa xeex ak nit ñi ba ñu wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah bu ñu ko waxee mus nañu eh, eh, eh, amatuma droit ci seeni deret ak seeni alal bu ñu xasee ba ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ba dugg donc l'islam amatuma benn droit bi ma anam xeex leen te loolu nag nekk tey benn problème boo xamante ni da ngay gis kuy wax laa ilaha illa mbokkam jullit jàkkaarloo moom di ko yéeféerlu te yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ni boo jàkkaarlooweeg sa mbokku jullit ne ko yéeféer nga fexeel ba nga nekk yéeféer bu dulee yéeféer rek yow da ngay yéeféer te léegi nag laa ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wax leen laa ilaha illa allah ngeen texe wax leen laa ilaha illa allah ngeen def ñëpp jàpp ni boo defoon lu la neex bay waaj a génn wax laa ilaha illa allah ça y est booy wax laa ilaha illa allah même ni la ca des ñëwul c'est fait texe ba pare te laa ilaha illa dafa am ay surut dafa am ay sax am na juróom-ñetti sàrt yiy tax ñu d'accord ci sa la ilaha illa allah bu loolu amulee dafa am lu ñuy wax takfirul am wala takfirul muayyan am bi moom mooy bi nga xamante ni dañu naan jiw bu defee lii yéefar la nit ki bu defee lii defee lii yéefar waaye yow amoo droit jàkkaarloog moom ne comme charte yi gisoo ko ci moom rek yéeféer yi wala taqulu liman ilqa ilaykum assalama lasta muminan tabtaxuna arada alxayaati dunia fi inda allahi donc ila axiri al aaya bul jàkkaarloo bu leen bu leen ne ka wax laa ilaha illa allah wala ka leen nuyu ngeen jàppee ko yéeféer liw ku waraloon loolu saxaabi yu ba ko defoon moom mooy que ni groupe saxaabi yu jataangam jóge woon benn benn maaraka di ñëwaat am am ay donc sàmmkat benn sàmmkat bu leen séenu woon mu ne lii de drapeau yu weex yi ak seen taxlil yu ñuy def ñii ay jullit lañ mu dem yëg ci kaw xeer bi pour wane ni jullit la

mu ne ko mu ne laa ilaha illallah nga dagg baatam ba xam xotti woon nga xolam ba xam ba ba ba vérifier ba xam laa ilaha illallah am bi wëru saxaabi yu bi nee na regretté regretté naa wax jëf jooju bés bu doon sama sago na fekk ne bés boobu laa dugg lislaam fekk dafa moom la def léegi nag ña naka naka la ni nga xamante ni da gis Baay Faal bi di taxaw di laa ilaha illa allah nga ne yéeféer la nga gis tijaan bi di wasifa nga ne yéeféer keneen ak ci keneen nga fekk muy wax laa ilaha illa allah nga jàkkaarloog moom ne ko hypocrite bi lu ñu lu bëri ci ñun dañuy utiliser mot boobu te mot bu fort hypocrite inna al munafiqina fi daraki al yonent bi nekk nag hypocrite di ànd ak moom ñoom xeex di julleendoo ak ñoom te mu xam leen musu leen dénoncé bien que nag woo na benn saxaabi yi wax ko diw ak diw ak diw ak hypocrite la bi à titre d'information bu mu xamee ko noonu Seydina Omar daana à chaque fois di xool saxaabi di laaj saxaabi bi boobu est-ce que man bokk ci douze yi yonent bi ne woon ay hypocrite la mais yonent bi def xamoon ne ñoo ngi doon léegi lan moo ci seetlu est-ce que le fait que yàlla ne inna al munafiqina fi daraki l asfal ñuy wax laa ilaha illa allah yonent bi ne woon quulu laa ilaha illa allah tuflihu ñii di ko wax ñu asfal yu bëri yoo xamante ni ne sont pas cohérents yee leen yàlla dafay wax lii yonent bi wax lii nga xool ci zaahir yëf yi xaw a ute fekk utewul yonent yàlla ne dugg leen àjjana yéen ak seen njaboot yi ndax jëf yi ngeen daan jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni du uteeg yàlla ne kenn ci yéen du dugg aljanna ndax jëfam lu dul yërmande yàlla moo ko fi yóbbu. yoo xamante ne ay musiba rek ngay wax bi ñu laajee boroom xam-xam yi ñu ne yërmande yàlla bi mooy wàcc ci kaw jaam bi mu jëf-jëf yu koy dugal aljanna donc yërmande yàlla bi moom mooy wàcc ci kaw jaam bi jaam bi jëf ay jëf yu koy dugal aljanna ba tey ci laa ilaha illa allah lu yonent bi di xamal baatu laa ilaha illa allah na mu foore mu ne ala kulli shay'in maa xala allahu kii subhanallah mu ne bépp euh, waykat la woon ñu wax ko ci arab wa qaala aydan asdaqu kalimatun qaala ashaa'iru kalimatu labid labid benn waykat la mu defoon ay woy bu ñuy wax ala tasalani maamaza yu xaabilu boobu ci muy jeexee ci biir woy ja mu ne ala kulli cheyin xala allah ala kulli ala kulli cheyin maa xala allahu baatilu wa kullu zailu lépp lu dul yàlla neen caaxaan yonent bi ne woykat yëpp kooku ñun ngay gis kuy jékki-jékki ne la lu dul yàlla neen lu dul yàlla neen lu dul daal d'accord dafa am sens wax jooju ndaxte yow mii di wax lu dul yàlla nee na la boo dajee gaynde bi doo ko taxaw te gaynde du yàlla walla gaynde du yàlla boo séenee fële policier bi doo grillé rouge bi te du kooku du yàlla te yow nga ne lu dul yàlla nee du dara gamaanam wax ji moom mooy que certes lu dul yàlla neen la bi maanaam lépp lu jógewul fi yàlla te war a lore te tudd yàlla moo tudd lii na lor diw bala lii na jàppale diw sabab ya sabab ya bi maanaam lu dul te ni dafa jóge ci yàlla mënul yàqal nit ki waaye nag lii yàq laa am na te du yàlla bu dul woon loolu yàlla du wàccee ñaari suuratu yoo xamante amul benn acte bi charia ay musluwaay la lu mel na qul a'uudu bi rabbil falaq pour lan yàlla dina yonent bi muslul min sharri maa xalaq lay loree ci jóge ci li mu nit ki jinne ba gaynde ba ak lépp loo xamante ni lore te ñun jàpp nañu amul luy loolee lu dul moom mooy que ni lay lor foog mu jóge ci yàlla foog yàlla bu dul loolu mënta lore waaye nag bu yàlla dogalee loolu sabab ba loolu mën na laa waxtaan jotulaay ba ngay delloo si fa yàlla foog nga xam la mooy sensu al waxdaani jotulaay balaa ngaa jël di jaxase lépp. ba finalement ngay jaxase ña ngay inter wala ña nga bëgg waxtaanal wala bëgg leen loolu nag bu fekkente ni sa xam màccul ci loolu dellu ci borom xam-xam yi mu xamal la moom moo gën a wóor da ci gën a bëri léegi ay interprétation ñoo yàq lu bëri bëri ah ñaari téere soo koy jàng hmm. téere yëpp d'ailleurs mais ñaari téere en tout cas ñun fi ñu laa plupart fi ñuy tàmbalee charia mooy al axdari mooy ibnu ashir la ci gën a bëri euh, moom mu ne boo xasee ba nekk muskallaf la nga war a njëkk def la nga war a njëkk def avant tout nekk nga muskallaf ba 18 ans wala euh, l'âge de puberté fii jotagoo loolu àtte guñ la saban yàlla ñu wax mais soo xasee ba toll foofu mu ne la nga war a njëkk def xam lii sellal sa iman boo demee ba cinquante ans ba soixante ans di laaj naka la ñuy sangoo su sama julli ban sujjóot laa war a sujjóot ce que damay reprendre ak ñu mel noonu ba soixante ans en vingt quatre heures soo liggéeyee fii ba liggéey ba liggéey ba yàgg ci journée bi douze heures de temps ngay def douze heures de temps yàlla dese yépp yàgg moo na sa parce que suñu ne ci wax yi nga jàppee ko nga jàppee noonu un mois nga jàppee noonu un an cinq ans dix ans vingt ans bu ñu la laajee sa pàcc moo ko te yow jàpp nga ni loolu yi naa toppatoo naa toppatoo sama dund te boo doon jël vingt minutes par semaine wax moom par jour de par semaine fexe ba jàng ci aaye benn aaye par semaine quatre semaines yi am nga quatre aaye au moins bu ñuy wax waxu voilà jàng normal te yàlla bi muy départ ak ñëw que xam na xam leen man maay seen borom xam leen ku jaamu néew ku dul man léegi nag jaamu boobu la bëgg nga xam nan lañ koy defee awwalu maa yajibu ala al-mukallafi tasxiixu imaanihi léegi imaan boobu nan ko war a seetale foog nga jàng bi nga bëggee permis ci projet école ba nga dem mu wan la tableau yi mu ne la bii feu rouge la mu wan bii sens interdit la fii stop la boo fi ñëwee da ngay taxaw boo passé fii donc retrait de quatre points la boo passé fii amende la mu wan la ko te nag fexe nga ba jàng ko ci quatre cinq six mois yow jusu am ma def nga vingt ans mënoo ko jàng peut-être neexoo xel mën nañ d'accord sans problème mën na am suñ la taxawaloon léegi ne la faatix ba suuratu humata c'est tout un problème bu ñu la laajoon ci taaya yi ngay ni ñu ko waxee bu baax a soriwul ak yu mel noonu ci baax la julli rek demaguñu fu sori te julli nag mooy lépp. boo deewee loolu lañ lay njëkk a laaj bu baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la ca def yépp baax bu dee da ngay këpp këppal ñu taxañ ko ba mu metti delloo la parce que ka dund 60 ans te mënta julli te dund euh, jël deux mois fexe am ci permis def vingt dix-huit ans def vingt ans fexe jàng ba ak am agrégation ak yu mel sama xarit yi fi ay avocat ay ay magistrat yu kenn xamul nga ne yow sa bisma rabbika ba ak euh, fatih tële na la nga ne fokk rek nga jël téléphone bi yaay imaam soixante ans yi nga fi nar a dund wala quatre vingt ans fi euh, war a su jeexee jeex na fële yàlla xam ba saa yu ko so neexee ilal abad léegi nag laa ilaha illallah nee nañu surut yi juróom-ñetti sart soo góor góorlu soo góor góorlu rek tuuti jël fan bu ne benn sart nga góorgóorlu rek def sa kem kattan da nga manqué temps da ngay liggéey xale yi njaboot bi fii français un peu compliqué tu sais on a essayé mais ba tu y a pas de problème on accepte léegi ma wax leen sat mu ne sat bu njëkk al ilm moo taxoon mu départ yu faalam annahu la ilaha illa allah lan lay dàq al jahl nga bañ a réer il faut nga xam ne la ilaha illa allah doone laa ilaaha illallah suba di këpp këppal ñu jox dem fexe teg fa ñu Quran teg fa ñu charia jox ma wér ñu jox la wér suba laa ilaaha illallah ngoon laa ilaaha illallah un mois laa ilaaha illallah un an laa ilaaha illallah te munoo fexe mukk ba nuuru laa ilaaha illallah dugg sa xol parce que laa ilaaha illallah ba ngay doon da nga koo xamul. nit boo imaam ba euh, ci shérif démb bi muy waxtaan bi muy def waxtaan bi dafa ne moom sama thème la jël dafa mel ni dafa yor ñoom dañoo am seen ne daa sama thème rek bien avant que muy ñëw ak yu mel bu njëkk ba nga xëy samedi juróom juróom nga xëy samedi ne tey damay xam sàpp bu njëkk ci laa ilaha illallah ne ne ah, yàlla dafa ne naa xam lan mooy la ilaha illallah pour wonande bandiraɓe ɓe ngannduɗaa emin heen gila naane ɓe mbaɗa gasi ɓe mbiyata gasi o yejjitibulaɗo mi yejjitani allah wii neɗɗo yo wat feere hade makko rewde mo o annda mo la ilaha illallah mo wiyata o yo anndu hol kanko holko holko foti la la ilaha illallah la ilaha illa allah somo wiya ɗum ene foti battinde e makko o annda hol firo mum mi haalani firo ngo tan kono o annda holto la ilaha illallah ummude e makko e holto faade e makko tiinoɗa noon mbaɗa kerti kerti kerti kerti ha daña visa en jarana so jaranima yaade hakkude e geeji wawi e uh, conflit e balɗe sappo lewru lebbi lebbi tati walla wonande hoɗe arafat noon sodde hakkude ɗon e conflit an andi no foti kurustu kurustu hakkeba visa allah adduma o saa la ilaha illallah holno fo ɗum ko sabliji jeeso hen ganda ɗumen ƴeewa wadde hen ko mawɗa awa wadde fof kono mbaɗa hen ko wawɗa tinnoɗa mbiya ala ɗum ne satti par ce que temps one manqui par ce que sukaɓe ɓe par ce que ko doganmi ko par ce que ko wonɗa ko eko way noon eko way noon eko way noon gasata te ka guurowo ɗo so heewi capanɗe jeetati walla capanɗe jeenayi allah junno guurno meji allah waɗanin temedere kono noon temedere ɗi ɓodi gasoji sodi gasi kaɓa paɗe ma notoɗa joomi o wima min noon winoma ne jahata aduna nde ko sa yeehi rewa ko hekkiti ko ko min waɗitini ngarɗa an ndewɗa ko woni kanko gaddinanoma ko goppuɗam kanko mo winoyare o ko heewe men noon so a wi ɗum paamata pour maɓɓe naggi koyeɓe duula eɓe koora wonde maɓɓe wona kamɓe kaaldete kefeere mo jaɓani la ilaha illallah koye on haaldat ko an jaɓɗo ɗum sali anndu ɗum hoɓe woni bone o kamɓe haalte nde goppuɗa haaju ma e hammuji ma fof jaɓɗa ɗum nde hankanne ko an wiya ya wat feere gannda ko jaɓɗa koko woni tawɗa ko yumma e bamma ene juula tawɗa ko hoddiɓe ma ene juula tawɗa ko almami dema mawɗon ene juula an ha a ari a takkima hen en heeɓi kono wiima onon ɗum ɗo kam ko gonɗe e rewde ko hol habaru muɗum holno ɗum yarata hol nafoore muɗum holto ɗum faajare holko waɗimi hen ganda hen ko mbawɗa andude hen ko ande wonde a tinnitima donc hunere on avant tout xamal ku ñuy jaamu yéeyoo jaamu ba néewu fi ku dul suñu borom subhanahu wa taala mu tegal la ci sax al ixlaas jaamu ba nga setal ko gannaaw ba nga ne laa ilaha illa allah na fexe laa ilaha illa allah bi sell set ci sa biir xol wa ma umiru illa li yacbudullah muxlisina lahu ddin lan lay dàq ashirk pour comme guddi gi euh, daf ñoo dab léegi ñu fexe rek donc euh, àggale surut yëpp da ngeen xam ko ba ca topp ba ca topp al yaqin nga gëm ni laa ilaha illallah bi ngay wax li yàlla wax looloo am loolu dëgg nga saxoo innamal mu'minu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika hum sadiqun yàlla ne ñoom amuñu sikki sàkk ci jaamu yàlla ba ñuy jaamu yàlla ak laa ilaha illallah ba ñu wax amuñu ci sikki sàkk loolu lan lay dàq mooy sikki sàkk ñaareel ba mu ne as-sidq إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون parce que ñoom dañu daan wax laa ilaha illallah di julleendoo ak yonent bi di lekkandoo ak yonent bi naanandoo ak yonent bi àndandoo ak yonent bi jihaad mais fekk laa ilaha illa allah ba gëmuñu ñoom naafiq yi waaw loolu mooy naafiq te nee nañ ñoom seen place a gën a moom innal munaafiqiina fi darki asfal lan moo ci topp almahabba nga bëgg laa ilaha illa allah ba ngay wax suñu borom subhanahu wa taala nga am ci moom cofet liñ la ne aha xamal ne ku ñuy jaamu ku ñu war a jaamu néew fi ku dul moom suñu borom subhanahu wa taala nga fex bëgg loolu diine ba ngay topp nga bëgg wala dina amanu ashaddu hubban lillah donc ndaxte bañ koo bëgg bi mooy lan la lay dellu dalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbata amalu bi ñu ko bañee rek seen liggéey bi ñu doon liggéey yëpp yàq ba ca topp al qabul fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima boobu ci topp ci charte yi lañ nekk beneen charte ba al inqiyaad wa man yuslima wajhahu ila allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila allahi aaqibatul umuur nga fexe sax jébbalu ci liggéey def mu sell ci yow nga saxoo beneen bi al kufru bi taawut yuriduna an yataxakamu ila taawut wa qad umiru an yakfuru bi donc lii mooy surutu laa ilaha illa allah nga fexe ba xam laa ilaaha illallah donc ba ngay def da koo war a saxoo da nga koo war a sellal pour mën a am njëriñam donc pour ñu fexe tënk rek balaa guddi gi donc euh, euh, di ñu presque raw ñu delloo micro bi donc euh, Chérif mu defal ñu waxtaan bi la ñuy dellu rek di ñaaxaat mbokk julli nii mooy ku ci fexe ba dikk ba dikk ku jàng mën laa jàngal. fexeel jàngi xamal sa bopp libéré sa bopp ci réer fexe léegi une semaine ci semaine benn programme ne serait-ce que trente minutes ne imam ban jour ngay am temps libre boo xamante ni wala ngeen nekk mbooloo fexe ba am benn programme boo xamante ni mun ngeen woo imaam ne imaam may ñu temps bi ñu fexe xam suñu borom subhanahu wa taala bul jàpp ne li ngay def rek li nga fekk say waajur di def rek doy na pour euh, continuer ci loolu déedéet ñooñu dañ leen sasoon def na ñooñu dañ laa sas du ma dugg ci wàllu njaboot yi parce que imaam wax na parce que pratiquement loolu yëpp léegi nag musiba bi ñu dal ak ni ñu war a comporté woo ba dellu ci suñu borom subhanahu wa taala moom mooy que nit ki ginnaaw bu mu demee ba xam yi yëpp ginnaaw bi mu demee ba xam lii yëpp fexe lépp lu muy def lépp lu mu liggéey mu bañ ko yàq ndax yonent bi sallallahu wa sallam dafa neen liy yàq liggéey dafa xëy bis toog ak saxaaba yi mu ne xam leen ku ñu saisir ku ñu saisir est-ce que xam ngeen ku ñu ku ñu saisir mooy lan mooy que liggéey nga ba am ay taax ay kër compte banque ñu xëy ba saisir lépp hmm. nga perte li nga liggéeyoon yëpp mu neex ñi dafa xam-xam ngeen ko maazallah yàlla na yàlla musal saxaab yi ne ñun li ñu xam ci ku ñu seet si rek moom mooy ki amul alal amul euh, ay taxawaay yu mel noonu euh, man laa gën a xamal la bu wala mata mu ne leen déedéet ka ñu saisir mooy ka nga xamante ni julli na ay julli yu dul jeex hmm. def ay zikr yu dul jeex def ay salaat yu dul jeex ay zakat yu dul jeex waaye làmmiñam gone yi musuñu ci jullit yi musuñu ci làmmiñam tooñ na kii dóor na kii saaga na kii amal na kii lii bu ñu ñëw fexe nag bañ koo réglé ba ñu ñëw yowmal kiyaama parce que ni nit di soxlaa foofu tiyaaba lu rëy euh, bëri na su ko defee nag ku nekk fay ko borom fiiw dóoroon nga ma kële ñëw ni saaga woon nga ma kële ñëw jéewoon nga ma ba à chaque fois ñu jël ci say tiyaaba di ko ko jox te tey wax dëgg yàlla wàllu jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi ciy def suñu kem kattan ndaxte fii ci France bàyyi ses temps yëpp ñëw di def yi wala dem ci jàkk yi fekk jàkk yi nga xam ni kii kenn obligé wu ko di def pour naan ba balaa ñuy wax ni liw def na ko moom moo tax ma koy def da ngay gis ku bàyyi liggéeyam direct jubal direct ci jàkk loolu góorgóorlu la mais fexe nag ba bu ko yàqaat ci gannaaw loolu bàyyi fen mënuma ko bàyyi mais au moins muy wàññeeku jéewkat laa woon mais fas yéene naa incha allah bàyyi jéew mën na koo bàyyi mais nga wàññi ci ña nga jéewoon nga fexe ba baalu leen bien que doo naa leen léegi mi la waaye dégg waaw salaamaaleykum wa rahmatulah yi mais nga fexe ba bul xaar ba tabaski yeeg korité fexeel ba gis ko rek prochainement nag nga fexe ba góorgóorlu doo ko doo doo tegati la salamin ci kaw ak gaawantoo wax lu ñu xamul gaawantoo wax lu ñu xamul boroom xam-xam wax ngay interpréter xamoo ci dara ci la muy wax nga dégg tel ne damm na kii di sàcc bon bi nga gis ku génn ci néeg rek ah, di mooy ñooy génn te te charia dafa ne bu boobaa nañ la tëral caw la quatre-vingt yet bi ko waxee rek mu daanu diw ak diw kay ay far lañu parce que la la la charia doon daw ba tëral charte ne foog quatre personnes ñëw fekk kenn woowul sa morom nga ñëw gis fekk ñu nekk waxuñu ñu nekk nii te dini rek de déedéet ñu fii di xew ah. waaw waaw dëgg la bu baax a baax donc kooku demal keneen ñëw kooku demal keneen ñëw ba ñu mat quatre ñoom ñëpp du ka doon ba may la waaj a dugg rek di diw ne ma loolu déedéet da gis naa fekk naa leen ci kay ñoom keneen ñu naa leen ci ba ngeen mot kat ko ana say seede mu ne ah bi may ku ñëw ci yow man kay yàlla ma yàlla bal eh, te xaar ma sax mu xaar nga koy encouragé tuuti waaw lan la non non mais nga xam a si àdduna dafa yàqu rek muy xaaree ko gën a pousse pour wax ci donc gën a jolli ngeen toog ba caa mu ne la vraiment c' est pas la même chose kii ak ma ko fonkee woon nag ba tey ma ngi ñëw ndànk-ndànk ba dugg nag ci sujet bi nekk ci nekk ci boppam ne ah yàlla na yàlla wala ba muy tàmbalee yàlla na ma yàlla baal yow mi nga ne yàlla na yàlla baal rek arrêté foofu ko ɗum noon eɗen eh, dartina ɗo haala ka ko kalɗen ɗo ko woni yo yimɓe ɓe yoɓe tinno ɓe dutto e diine eɓe duula eɓena koora eɓena mbaɗa denndangal golle moƴƴe kono juul o heñotaa ko julɗo banndi o haandintaa ko boni e julɗo banndi o haalataa ko boni e julɗo banndi so ɗemnano ko taatimen a waɗa yo yawno o yaafno o artira ko moƴƴi e julɗo banndi o haala e muɗum ko so wonaa ɗum ko o juuli ko o hoori ko o sakki ko o muddi ko ma fof ittatato e julɗo banndi ko njalla wadde laasi mbaɗa wasifa njuula koora ñakkude fayde rewma haa gitten ɗum itte musidma julɗo tatte hasanul basari yiɗeɓe mbinum kaari jogiima somi mum kaari ɗemi o yimimo wawa dañde on garade ala ɓe mbi somi mum a jogii kaari o wi o wawa dañde on garade ɓe mbi mo ɗiɗi ko waɗi noon o wi min mi fayde ñakkugol fayde mon ganduɗa mboɗo liggol mboɗo tottogol e mbi mon ɗum wayata ni o yimi juula mi hoorami sappo neɗɗo ɗigirta kontami haala mum pour barade ni cewna totte fiñu tëjee mooy di xasanul basari daan wax ah, ñu ne ko xasanul basari da ngay jiw mu ne déedéet man ñàkkee wu noonu fayda ñu ne ko lu waral loolu mu ne ñàkkee wu fayda ñàkk fayda boo xamante ni damay liggéey ba pare di ko jox keneen ñu ne loolu mu ne ma julli woor sarxe def yu baax yépp ab ku ma romb romb rek ma jéew ko pour samay caabi yi jël ko jox ko ko déedéet mérite ko donc ngeen jéggal ñu su fekkente ne am na lu manqué ci wax mais lillahi wa rasulihi bu leen jàpp ni mu jàng weesu na leen saxaabi yi lu mel ni mu aas bun jabal bi ñuy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen i quarante ans dépassé na àgg na xale léegi ngay gis ko xam ne 23 ans na wuuf jàng fekk foofu la war a dalee jàng nag mi ne la ma xëcc ilal la te bu ñu jàngee rek problème yu bëree bëri wàññeeku ndaxte ku xam diine am na yu bëri bëri li ngay rus ci am na yu bëri bëri li ngay ragal ci diine donc euh, ñu ngi jéggalu ñëpp euh, chérif ñu ngi lay bu baax a baax yaa imaam ñu ngi jéggalu bu baax a baax xataa yi nekk ci wax ji yàqu-yàqu yi nekk ci wax ji ton bi ñu waxee wax ji ak lépp lu mën a yàq ci wax ji ñoo ngi jéggal suñu borom subhanahu wa taala di leen jéggal yéen ulama yi fa nekk te xam di sutural toujours donc euh, sama classe bi euh, ñu wax axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin donc euh, ya Cherif bismillah micro أو أشبه الوبل فيها عاقب عامرا لصبح الناس